comme mbokk jullit yi ñu ngi ñëwaat ak yéen ci firim téere bi ñuy wax al axdari ci darsu juróomeel bi mu ne faslun lii ab fasele la waxoon nañ nag fasele soo ko déggee mooy dañaa génn ci wax di dugg ci beneen wax bu bokk tak wax juñ doon wax kon tey wax ju ñuy dugg moo lay jàngal yu yàq njàpp mu ne na waaqidul wudu yu yàq njàpp ahdaasun ay toj la wa asbaabun ak ay sabab yu yàq njàpp ñaari xaaj la mooy yu koy yàq direct ak yoo xam ne dafay sabab mooy yoo xam ne yu koy yàq direct mun na si xew ñu far boole ko su koy yàq direct mu ne fal ahdaasu toj yi mooy yu koy yàq direct bu si njëkk al bawlu mooy tuur ndox wal xaayitu ak dam ginnaaw kër war riixu ak ngelawal wal mazyu ak mazyu wal wazyu ak wazyu wala loolu moo yu koy yàq direct yu koy yàq direct moom yii la bu si njëkk mooy a tuur ndox boo jàppoo pare nga tuur ndox sa jàpp lu yàqu na wal xaayitu ak dam joor bu dee da ngaa jàpp ba pare nga dem duus sa jàpp li yàqu na ak ngelawal bu dee da ngaa jàpp ba pare nga ngelawal boobaa yow tamit sa njàpp li yàqu na ak génnee mas yu mas nag moom ndox la boo xam ne ndox bu woyof la boo xam ne ndox bu weex la te woyof boobu moom si bànneex lay génnee loolu ku ko génnee si njàpp bu rek boobaa njàppam yàqu na wal was ak was yu yu moom benn ndox la boo xam ne dafa tal lool si mujjub tur ndox lay génne nit ki dana ko baaxoo di génne si mujjub tur ndox waaye nekku nit yëpp nag bu dee dafa jàpp ba pare dafa tuur ndox jàpp ba pare mu génne wat ji comme boobaa njàppam yàqu na wala léegi-léegi sax sonn dana ko waral wala indi diis ñu yokk si benn muy maniyu génnee maniyu moom lu muy waral moo gën a mag njàpp sax moom sangu lay waral waaye nag bu dee da kaa génnee si lu dut bànneex buñ baaxoo comme boobaa dafay waral njàpp masalaan dafa doon ah, dañ ka mbaj mu génne maniyu wala ñu door ko mu génnee maniyu comme boobaa génnewu ko si bànneex buñ baaxoo kon kooku njàppoon yàqu na waaye dafay sang waaye bu dee tamit daf kaa génne si bànneex buñ baaxoo waaye bànneex boobu baaxoo wuñ ah, di si génnee maniyu comme mu doon raay taabam am si bànneex génne maniyu comme boobaa du waral sangu waaye dafay waral njàpp wala mu doog koro koro nopp am si bànneex génne ma nuyu boobaa du waral sangu waaye dafay ah, waral njàpp ndax loolu baaxoowuñ si di génnee ma kon yooyu mu yooyu mooy yu koy yàq direct ñu ñëw si yoo xam ne mooy sabab yi mooy yoo xam ne yu koy yàq direct mën na si xew waaye te borom du yëg mu ne wal asbaabu sabab yi ak nawmu mooy nelaw asaqiilu bu diis yàq njàpp bu si njëkk mooy nelaw bu diis dafay yàq njàpp ndax nelaw bu diis boo nelawee nelaw bu diis mooy nelaw boo xam ne ah, ku dugg sa néeg doo yëg ku génn doo yëg ba boo téye woon kurus di wird bu waddee sax doo ko yëg ndax loolu yu koy yàq direct mun na si xaw yii mun na si xaw mu nga tuur ndax wala nga génnee mas yi te doo ko yëg wala nga yu te doo ko yëg wala nga ngelawal te doo ko yëg loolu moo tax ñooy muy waral njàpp ak nelaw boo xam ne dafa gudd te woyof moom moom du yàq jàpp waaye dañuy sopp borom jàpp rekk masalan dafa doon nelaw bu gudd te woyof mooy ku dugg doo yëg ku génn doo ku dugg da ngay ku dugg sa néeg da ko yëg ku génn sa néeg da ko yëg même boo téye woon kurus di wiir di sax bu waddee danga ko yëg waaye bu guddee moom sopp na nga jàpp waaye bu guddut moom soppuñ sax nga jàpp ak nelaw boo xam ne dafa diis te gàtt boobu tamit moom dafay yàq njar jàpp ndax yii mu la wax nii koy yàq direct mën na ci xew moo tax ñu fa boole ko suy yàq jàpp kon loolu mooy nelaw mu ne ak nelaw bu gàtt te nelaw bu gàtt te woyof mooy koo xam mooy nelaw boo xam ne daal ku dugg sa rek doo ko yëg ku génn sa néeg doo ko yëg même boo téyewoon kurus di wiidu sax bu waddee nga yëg ko waaye nelaw yi dafa gàtt comme boobaa loolu boobaa moom day soppuñ sax nga jàpp yàqul njàpp loolu gémantu la rek mu ne wal irmaa u ak xëm xam moom dafay yàq njàpp ndax yi mun na ci xew yi mu la wax ni yi koy yàq wa sukru ak mandi mandi tamit dafay yàq njàpp ndax yi mu la wax ni koy yàq direct mun na ci xew wal junuunu ak dof mooy xel bu dem dafay yàq njàpp moo dafay yàq njàpp ndax yi mu koy yàq direct mun na ci xew moo tax ñu bool ci koy yàq njàpp mandi tamit xel bu dem la ak ah, ah, kii xëm yooyu xel yu dem la moo tax yi yàq jàpp deret mun na si xaw moo tax ñu far boole ko yàq njàpp mu ne kon wal xublatu ak foon walamsul marati ak laal jigéen waaye mu noon na wax wal xublatu ak foon walamsu ak laal rek comme boobaa boobu lay gën a mat ndax waxee walam sul mar'ati laal jigéen comme boobaa dafay mel ni jigéen bu laalee góor comme boobaa tamit njàppam du yàqu waaye tamit jigéen bu laalee góor ak góor bu laalee jigéen ñaar yëpp ci am fóot nag moom boroom xam-xam yi mayewuñ ci dara lu dut foonu tàggatoo ak foonu yërmaane bu dee dafa doon tukki muy foon a soxnaam ngir tàggatoo kon booba njàpp li yàquwul waaye nag a si gémmiñ moom dafay yàq njàpp nu mu mën a demee waaye bu dee nag dafa foon si lex waaye am na si bànneex boobaa njàpp li dafay yàqu waaye bu si amul bànneex waaye jublu na ko si boobaa njàpp li dafay yàqu waaye si jublu bànneex amul ko si comme boobaa njàpp li du yàqu mu ne walam su ak laal jigéen laal góor góor bu laal jigéen ak jigéen bu laal góor ñaar yëpp am bu dee mu laal moom bu dee moom ak fon si leex benn la bu dee dangaa laal jigéen walla góor nga am si bànneex kom boobaa njàpp li yàqu na waaye bu dee amoo si bànneex waaye jublu nga ko si boobaa njàppal yàqu na waaye bu dee jubloo si bànneex amoo ko si comme boobaa njàppal yàqu na même bu dee sax dañ la doon laal ah, yow tamit nga jege si pour mu gën laa laal fekk da nga see jublu bànneex mu laal la te amoo si bànneex comme boobaa ba tey njàppal yàqu na ndax da nga see bànneex mu ne in qasada nem jublu na si allazata bànneex aw wajadaha wala mu am ko si mu ne wa masu zakari ak laal saakara bi baatinil kaffi si biir tenq yi aw bi baat baatinil asaabi wala si biir baaraam yi ak laal sa saakara boo ko laalee si biir tenq yi mooy fu loxo bi xonq loolu dafay yàq njàpp wala si weti wala si baaraam yi loolu dafay yàq njàpp fu loxo bi xonq mooy suñ la joxee kaas foo koy téye boo ko saakara dafay yàq njàpp wala si biir baaraam yi wala si ah, pegg yi weti yooyu boo ko laalee saakara dafay yàq njàpp sa sakara nag nañ wax bu dee saakara bi dafa da sol lu woyof ba saakara bi di feeñ nga laal ko loolu yàqul njàpp bu dee nag saakara bi dafa wadd nga téye ko loolu njàpp bu jokk nañ wax bu dee tamit danga ngaa laal saakara jàmbur loolu yàqul njàpp waaye jigéen nag moom moom a kanamam moom yàqul njàpp moom bu bu ko si dugalee bu ko laalee bu ko dugalee si biir yooyu yëpp yàqul njàpp mu ne waman shakka ku sikk fi xadasin si toj wajaba war na alayhi si moom alwudu njàpp illaa an yakuna lu mooy mu nekk mu waswisan di aji jax-jaxal koo xam ne moom dafa jàpp ba pare muy sikk saaka ndax toj la na wala toj law comme boobaa na jàpp ne toj na mu dem jàppuwaat sikk nag moom ñett xaaj la muy sik saaka ndax toj na wala toj lawu comme boobaa na jàpp ne toj na mu dem jàppuwaat wala muy sikk saaka ndax jàpp na wala jàppuwul comme boobaa na jàpp ne jàppuwul mu dem jàppuwaat wala muy sikk saaka ah, ndax ah, waaye jàpp wala jàpp na. dem na duus waaye xamul ban xamul ñaari yooyu ban moo njëkk xamul jàppali mooy njëkk wala dam wanag bi moo njëkk comme boobaa loolu na dem jàpp xam ne jàppali yàqu na lu may mu nekk koo xam ne nag dafay jax-jaxal kuy jax-jaxal mooy koo xam ne chaque jour dana bis bi dana sig saaka lu ëpp benn yoon kooku moom buy sig saaka ndax jàppam toj na wala tojut kon kooku boobaa ah, na dem bu mu faale loolu na dem julli ji ndax toroxal seytaane loolu seytaane moo koy def waaye bu dee nag dafay tëbal comme boobaa kooku nekkagut mu waswis nekkagut kuy jax-jaxal ko kooku boobaa dafay dem jàpp ji loolu moo tax mu ne illaa yakuna lu may mu nekk mu waswisan daa jax-jaxal fala shay'a de dara alayhi di ko mu ne wayajibu dana war alayhi si mukallaf bi rasu zakari mu raxas saakaram kullihi lépp min al mazi si mazi kon wa tuddaloon na la mu lay waxal atteem nii bu dee tuur ndox bu dee da ngaa tuur ndox moom mu nga fomp mu set rek wala nga raxas bu dee nag da ngaa dem duus nag moom mu nga fomp mu set rek wala nga raxas ko ngelaw moom moom da nga koy bàyyi noonu rek bu dee tamit da génne génnee was yu tur ndox benn la mu nga fomp mu set wala nga wala ah, nga raxas ko waaye génnee mas moom moom dangay raxas dale dalee bi ba suuf waaye ñaari way moom doo ko raxas moo tax mu ne wa yajibu dana war alayhi si mukallaf xasu sakar mu raxas sakaram kulli lépp minal maji si génnee maji waaye wala yaxsilu du raxas al unsayeeni ñaari way yoore léegi mu lay waxal lan mooy maji mu ne wal maji maji huwa moom almaa u ndox la alxaarij buy génn inda shahwati suxra si bànneex bu ndaw bi tafakkurin si xelaat aw nadarin wala xool aw xayri wala yeneen yu dul yooyu mu ne mas ndox la boo xam ne dafay génn ci bànneex bu ndaw waxut nag nu mel ndox bu weex la boo xam ne dafay génne si bànneex bu ndaw xelaat mun na ko waral wala xool jigéen wala sëy lu jiitu lu jiitu sëy waral ko yooyu mun na ko waral mas yu nag mani yu moom bokkut ak mani yu mani yu moom boo génnee boobaa boom doo soxlaati bànneex waaye mas yu moom boo génnee boobaa sa saakara mën na jug te tamit dangay soxla bànneex waaye mën yu boo génnee moom sa saakara du jug te teewul nag ba tey danga soxla bànneex kon loolu mooy maju mu ne faslun lii ab fasela la mu ne laa yaxillu du dagan li xayril mutawaddiyu ñeel ku yor njàpp salaatun julli wala tawaafun du wër kaaba wala mas nusxatil quran wala mas nusxatil quran du laal eh, daru alquran du laal kaamil alquran alazim bu màgg wala jildiha du laal derwa laa bi yadihi waxuma si loxom wala bi udin eh, waxuma eh, wala bi udin wala bi udin du ko laaleeg bant mu ne wanax wi ak yu nduróog yooyu léegi mu lay waxal ku yor njàpp liñ koy tere mais ku yoru njàpp tere nañ ko mu julli tere nañ ko mu wër kaaba tere nañ ko mu laal kaamil alquran kon ku yor njàpp tere nañ ko mu laal kaamil alquran tere nañ ko tak mu laal euh, luñ der ba mooy luñ ko ëwee waaye ñun nag ngoro nañ koy wax ndax ñoom dañ doon ëw alquran du ko laalee ak loxom du ko laalee lu jokk ci loxom kon ku yor njàpp tere nañ ko mu laal kaamil alxuraan du ko laalee si loxoom du ko laal lu jokk si loxoom ak yunduroog yooyu noonu yëpp bu dee kaamil bi dafa nekk fee muy jël te amul njàpp mu jël bant di ko laal kon loolu dafa xaraam da am bàkkaar waaye bu dee nag kaamil bi dafa nekk si kaw saag bi waaye moom jëlu saag bi waaye day ekkati saag bi waaye jullu si laal saag bi kaamil bi les jublu comme boobaa ba tey loolu baaxu da si am baakaar ndax moom lu mu bi ndax innamal amalu binniyaat kaamil bi dafa nekk si téléphone am waaye moom jubluwut laal téléphone bi kaamil bi la jublu kon boobaa ba tey loolu baaxul mayuñ ko ko mu ne illal juz'a lu mooy xaaj mina si al mutaallamu kuy jànge kuy jànge fii si moom mu ne xaaj rekk nañ may mu laal kuy kuy jàng moom nañ may mu laal xaaju kaamil léegi am na sax ñu wax am ne ñu ne may nañ ko mu laal kaamil bi yëpp kuy jàng ak kuy jàngale yëpp mu ne wala mas lawxul quran du laal aliwoo alquran alazim bu màgg bi ala xayru duy si ku yor njàpp illa li mutaalimin ludut kuy jàng fii si moom aw maalim wala kuy jàngale yu saxu di ko wéral mu ne ku yorul njàpp mayuñ ko mu laal aliwo alquran boo xam ne moo aliwo boo xam ne dañ see bind alquran waaye léegi sax am na keneen yoo xam ne dañ siy bind alquran loolu maye wuñ ko bu yoroo njàpp lu du koo xam ne day jàng wala kuy jàng moom may nañ ko mu laal aliwa alxuraan ndax mënut ah, saa buy jàng rek ah, mu dem di jàpp loolu dafay métti wala ku koy jàngal moo xam ne bu yàqee moo koy wéralal baat yi di ko waxal mu ne wasabiyu xale fi masil quraani si laal alquran quelque biir comme mat wal ism bàkkaar bi ala munaawilihi war na ku ko loo loolu ñeel ko mu ne xale bu laalee alquran mag bu ko dimbalee bam mu laal alquran bi kooku nañuy bindal bàkkaar bi lu mu bëgg wax mooy xale bu defee bàkkaar ku ko dimbale ba mu def bàkkaar bi moom nañuy bindal bàkkaar bi waaye borom Muqaddimatul Hizbiyya moom lu mu wax mooy xale bu laalee alquran moom loolu dañ koy sib rekk du si am bàkkaar ndax majeuragul waaye ah, xale moom borom ah, laxdari moom nu mu mooy xale bu laalee alxuraan bu defee bàkkaar ku ko dimbale bam mu def bàkkaar bi kooku nañuy bindal bàkkaar comme bu defee tiyaaba tamit ku ko dimbale ba def tiyaaba bi loolu kooku nañuy bindal tiyaaba bi mu ne wa man salla ku julli bi xayri wuduin su lu dul njàpp tey ko fa huwa moom kaafirun yéeféer la waliyaadu billaahi yan nañu si yàlla musal fii nag laaj na teqale bu dee mu ne koo xam ne dafa jilli toyoor njàpp kooku yéeféer la bu dee moom gëmul njàpp kon bu dee moom gëmul njàpp boobaa bu jullee te jàpp kooku yéeféer la waaye comme booba dafay weddi aaya alxuraan kooku weddi aaya alxuraan kooku yéeféer la waaye bu dee nag gëm na njàpp waaye ah, moom tayal moo tax njàpp wut rek wala ah, saay-saay moo tax njàpp kon kooku saay-saay la ah, faasiq la yow loolu yan nañu si yàlla musal kon lii moo nekkoon li ñu woon lii moo nekkoon dars tay lax Laxdari bi